dañuy continuer rek waxtaan bi woon démb euh, jot ci dëgg la barewul euh, le man li taxoon ma sawar ñëw fi dañu wax dañ fiy def espace de réflexion et de recherche ñu gëm ni université waratul nekk rek espace bi nit ñuy toog dañu war wàcc ci terrain bi pour gën a mën def li ñuy def léegi nag bu fekkee ni dañuy fi woo pour ñu def une réflexion ak recherche yaakaar naa ni dañu war a jaar ci règle yi nga xam ni loolu la recherche scientifique di wax parce que ñëwuñu fi pour wax suñu opinion suñu opinion wu personnel peut-être que intéressé wul kenn li intéressé nit ñi mooy loo xam ni lan lañ fi génne sukkandikoo ci xam-xam Euh, may féliciter conférencier bi euh, première partie intervention daanaka awma lu bare lu ma ci wax parce que li mu ci wax lu ci bare bind naa ko déjà mu ngi soit ci internet soit ci ay livres soit ci cours nouveau bi professeur Malick Ndiaye di diriger ma doon juste préciser que de April du féministe euh, science politique la def. dafa ni bi mu indee affaire parité 89 conseil de l'Europe loolu tax ko woon jóg affaire u jigéen mais colonel April dafa wax équivalence en dignité dafa ni société bi dafa am ñaari composante góor ak jigéen équivalent en dignité ñun ñoo dem jëli di concept sociologie d' équivalence fonctionnelle moo di bu ñu yamee ci suuf war nañoo mën a yam ci kaw ñu dolli ni parité c' est pas un concept scientifique c'est un concept politique loolu moo tax ñun ci suñu analyse fii ci Sénégal ñu ni parité na yem ci espace politique parce que ancien président de la République Abdoulaye Wade am na CD bu ma lay nar a jox ak livre bi ñu def mi ngi fii dafa ni je la parité partout à l'Assemblée nationale au Conseil économique au sociale au Sénat et cetera ñu ni ko loolu mënul nekk parce que équivalence fonctionnelle pour le moment ci espace politique la am loolu laa doon wax démb administration moins de trente pour cent amul équivalence à la base mënoo fa def parité au sommet euh, kon bu ñu confondre ay discrimination positive ay genre ay parité genre science la féminisme idéologie la université Cheikh Anta Diop li tax ma si ñëw parce que dama créer laboratoire bu tudd genre et recherche scientifique université nangul ma ko parce que université bu ñu demee ba nangu dara fekk na teg nañ ko ci dëgg ndaxte avant laboratoire bi nanguwuñu woon ñu fay jàngale genre sama collègue bi ki fi daan jàngale muy Fatso dama ko doon wax ci article bu mu bind elle a introduit les genres par effraction dans le cours de sociologie de la famille mais bi ñu ñëwee woon leen leen genre science la te espace universitaire boo bëggee rejeter dara il faut nga argumenter soo argumenté wul da ko war a nangu foofu la laboratoire genre commencé génn parce que genre science la euh, mënuñu tey fii xaju fii ñu ko fiy def moo tax ma ni euh, débat bu mel nii du débat ordinaire bi nga xam ni ku nekk da ñëw rek cof si yokk xam-xam parce que argument contre argument la et c'est ça la démarche scientifique la démarche rigoureuse donc damay ñëw rek si question bu ma sama doom ji doon wax ni ma affaire parité bi man lenn rek moo ma si jaaxal moo di affaire compétence lu tax ñuy jël ay jigéen di teg ay jigéen te compétent wuñu ma ne ko mais parité waxul jigéen parité bi dafa ni list bi alterné homme femme niwul segg leen ay jigéen ngeen teg fa dafa ni parti politique yi list bu ngeen di indi il faut ngeen jël comme seen parti la fa nekk si jigéen moo fa nekk ci góor bu ngeen tabbee góor tabb leen jigéen kon bu ñu tabbee jigéen bu incompétent fotu parti ba bu ñu tabbee góor bu incompétent fotu parti ba la pour le moment bu ñu ñëwagum di wax affaire compétence dañu wax affaire justice parce que li tax góor ak jigéen nekkuñu woon foofu euh, ñun suñu laboratoire def nañ ay gëstu moo dina leen bàyyi lii yëpp ñu ñëw si histoire Ndate Yàlla tudd na ko parce que bi fi tubaab bi di dugg ci réew mi ki mu jëkk jàmmaar lool réew mi mu jëkk jàmmaar lool jigéen a ko jiite woon kon suñu société dafa nangu woon jigéen nekk ci espace politique euh, bu ñuy wax affaire euh, compétence naan est-ce que parlement bi euh, nga xam ne dafa am jigéen yu bare est-ce que dina changer ci éducation est-ce que dina changer di lii loolu du wax ci parlement bi justice lay rétablir maintenant bu ñu bëggee am ay parlementaire yu compétent nañ def critère nañ ñi parlementaire bu amul ba bac doo nekk député am na réew yu mu am nañ wax parlementaire bu amul lijaasa sàngam doo nekk parlementaire bu boobaa ils seront obligés teg jigéen bu am compétence boobu ak góor bu am compétence boobu euh, li tax ñun am na beneen téere bu ñu bind euh, mooy bii parce que dafa am ñu jóg bi ñuy dugalee jigéen ñi ñu ni c'est le parlement le plus nul de l'histoire du Sénégal ndax jigéen ñi dañ faa bari mu am sama benn naatangoo bu jógee Bénin directrice institut du genre ñëw ni ma yéen di def ngeen parité waaye 90 pour cent yi jànguñu te xam nga suñ ko xasee bind ci internet day law moo taxoon ñu ni il faut que ñu régler loolu dem defi ji enquête ci député ya livre baa ngi nii wane ni parlementaires yi 37 virgule 5 pour cent am nañ diggante euh, bac ak doctorat 22 pour cent yi am na niveau secondaire 12 pour cent yi ñoo amul benn niveau am na si ñoo xam ne jàng nañ arabe ñooñu dañu considéré am nañ jàng nañu kon problème bi waaye góor ñi nanguwuñu répondre questionnaire bi te def ma leer ni la fa am si jigéen ñu am niveau supérieur bi amu ko ci góor parce que parlement bi am na góor ñoo xam ne jànguñu aussi jàng bi ñu tudd jàng nasaraan laa bëgg wax kon dañuy war a toog xoolaat ñun li ñuy soxal mooy est-ce que évaluation bi ñu nar def ñun si ban njëriñ la fa parlementaire yi di am moo di est-ce que taxawu nañ fa taxawu bu war waaye parlement wu Sénégal ñëpp wax nañ leen ni budget bi mënuñu ci dara ñoom ci seen bopp ñoo koy wax parce que on est dans un régime super présidentiel fan ngeen gisee parlement depuis combien de temps bu fi def proposition de loi c'est très rare xanaa ci loi bu mujj bi kon problème de parlement bi aujourd'hui mënuloo ñëw ni parce que jigéen ñaa fa nekk nii ak naa ak naa la am nañ ñun yeneen critère d'évaluation bu ñu ñëwee ci affaire u parité bi sénégalaises yëpp bokk xalaat lii ñun ñu ngi ko bind def naa 2009 ou en tout avant texte baa dañu dajale jigéen ñi nga xam ni ak góor ñi nga xam ni ñii lii lañ xalaat ci parité ñii xalaat leneen ñu def un débat contradictoire génne ko moo tax bu fi nit ñi li am sa tudd wax dëgg la doo généraliser benn nit du jóg wax dara rek nga ne ah femmes yi lee loolu lañ xalaat femmes yi bokkuñu xalaat bokkuñu gis-gis si mbiru parité te livre bi tënk na ko wane na ko. léegi nag ñun bu ñuy def genre li ma la wax genre science la genre moo indi lii li ñuy wax indicateur en zéro de la parité dañu sa xay xayma secteur u Sénégal yëpp fan la fa gap bi am différence. entre góor ak jigéen nga xam dañ ko teg si lu dëgg xool nag est-ce que différence boobu dina am inconvénient si suñu développement walla déet ñu jéem di si liggéey bi ñu doon def parité bi dañu wër Sénégal gis ngeen ñoom ñu ngi nii euh, liñ leen tudde bilan d'une campagne des hommes s'engagent ñii ñëpp dañu sol ñu dàll dem seeti leen ñu ànd seeg ñun gannaaw bi président Ablaye Wade àndee ñoom ñëpp. président Macky Sall ngi fi Moustapha Niass ngi fi Ousmane Tanor Dieng ngi fi ñàkkul sax gis ngeen bi fi problème Touba bi amee ñun dañu génne benn spot publicitaire spot boobu dafa won Ablaye Wade di wax naan il est temps de venir la je pense qu'il est venu le moment de voter la loi sur la parité le président Macky Sall ni je félicite mon prédécesseur mais en vérité man maa ko jëkk appliqué Moustapha Niass jóg ni dañ koy def parité intégrale CD bi danaa leen ko jox Ousmane Tanor Dieng wax ni c'est irréversible Youssou Ndour ni efficacité la gëm dana ko def ci entreprise am ñu koy dox di ko dox di ko toppante noonu ba àgg ci Moustapha Sy Djamil mu ne nañ def parité partout et même dans la fonction publique soxlootul loi kon ñun sol nañ suñu dàll dem seeti ñu ñu war a seeti dem ci biir population bi wax ak ñoom parce que wax ji du rek ay nit ñoo jóg fale parce que bu fekkoon ñi nit rek ñoo jóg te ñëpp ànduñu ci yëf du dem. kon ñoom ñëpp lii lañu wax pour dire démarche bi nga xam ne def nañ ko mais problème bi pour euh, li ma leen di fi may terminer moo di damay ñëw benn conversation li ñuy wax dialogue de sourds dafa amoon sa rom pape bi mooy fa pape bi dëkk ak mu ak moo di benn tur la ci yawut yi léegi pape bi xëy suba dafay dàq yawut yëpp ci rom mujj gi ñëwut yëpp jaaxle mu leen waaye am na benn condition bu des su ngeen dañuy da ngeen di ñëw débattre ak man tànn ku ñëw débattre ak man su ma gañee ngeen génn su ngeen ma gañee ngeen toog ñu dem seeti kàngaamu yëwut yëpp professeur d'université yaag banque yaag ñëpp daw kenn ñemewul débattre ak part bi ah monsieur moom moo doon bale mbedd ma foofu benn màggat bu doon bare mbedd la ñu ne koy monsieur yow yaa fi des est-ce que di nga dem wax ak pape bi mu ni waaw waaw danaa dem monsieur li si xelam moom il n'a rien à perdre léegi monsieur daal dem nag ni pape bi am naa condition dañuy débat mais kenn du wax pape bi ni ko d'accord commencer mu ne ko commencer yow pape bi ikkiti ñetti baaraam monsieur ikkiti benn baaraam pape bi wëndeel loxo si bopp bi monsieur samp loxoom ci suuf paat bi ñuqi génne seen tàngal yooyu ñuy joxe bu ñuy def seen communion monsieur génne pomam rek pape bi ni monsieur gañe na ma monsieur gañe na ma catholique yi nag ni tey du ci dal monsieur mi jàngul kenn xamul lu mu doon monsieur ni gañe na pape bi ñu dem nag seet pape bi ni ko yow mais pape lu tax nga ni monsieur la gañe mu ni monsieur gañe na ma parce que dama génne ni ñett yi mooy au nom du père du fils et du saint esprit monsieur wan ma ni yàlla kenn la kon wax na dëgg mu ni ah man ko mi ngi fépp mu ne ma yàllaa ngi fii ak ñun wax na dëgg ma génne communion bi nga xam ni mooy tax ñu dënn la faral la say bakkaar mu won ko ni bakkaar bi dëkk moom mu génne pom bi rappelé ma la Adam defoon ba tax ñu wàcc ko aljana kon nag Moshe gañe na ma yow wuti dem si Moshe ni ko waa Moshe yow foo jaar ba gañe paat bi mu ni ah paat bi ñëw ne ma ñetti fan laa leen may man ne ko benn kenn suñu du fi jóge benn kenn du fi jóge tey mu ni ah bind ma dama ne leen yéen ñëpp ma ne ko ma ne ñu buusi fii la ñuy toog mu ne ah ma génne añam ma génne sama ay waaw kon loolu moo di déggoo amu fa dialogue du sourd te dafa mel na parité bi dialogue du sourd moo fi nar am déggoo wu ñu tudduñu déggoo en tout cas ci bii yoon parce que bu ku bu nekk ne ci sama position laay campé keneen du bouger du ñu dem waaye li am ba am nit nag mënul géntal xalaatu nit mënuloo tëb ni yow féministes yi lii lañ xalaat te xaw ma sax ku ñu tudde féministe de waaw loolu moo a jaaxal aussi ñoo dañuy toog rek ñaari jigéen ñu féministes yi ñun man dama jàpp ne chercheur laa lépp lu ma wax si gëstu laa ko teg bañ ñàkk ba ku ma woo télévision laaj ma ci loo xam ne liggéeyuma ci dama naan la ñëwuma parce que sama opinion intéressé wul Sénégalais yi gëm naa ne bu ma taxawee di wax ak Sénégalais yi damay wax loo xam ne dañ cee jëlee njëriñ wala am na fu ma ko teg donte d'accord uñu si mooy ci li may liggéey ak si li may jàng bu ñuy wax ñun euh, parité ñun enjeu de développement lañ wax keneen que la mu dugal ca baat ba ñun loolu du suñu problème suñu problème moo di gëstu yi mu def moo ñu won écart yi mu mu mu mu démontrer que ni retardu développement au Sénégal loolu bokk na ci ñu gëm ni suñ ko combler dina dem enjeu de développement lañ wax. moo tax ñun ñu ni parité ne pas un concept scientifique parce que bu ñu doon science sama collègue Malick nga fi ñun bu ñuy def recherche. échantillon dafay proportionnel ak la population mère or bu jigéen ñi nekkee cinquante 52 pour cent kon kay jigéen ñi bu ñu doon def science rek ñun ñooy cinquante 52 pour cent au système bi yëpp mais waxuñu loolu dañu ñëw wax l'équivalence en dignité et l'équivalence fonctionnelle bu boobaa loolu moo tax ñu ne bu dee parti politique yi jigéen ñi sax ñoo fa ëpp ñooy liggéey ñooy dem sa ngénte ñooy dem sa dëje ñoo leen di wutal sax ay militants mais waay waay waay gore leen bu ngeen di tabb ngeen tabb leen loolu lañ leen wax parce que ki ñu laaj sa parlement ba lan lañ ko laaj mooy mu wax waxu penc mi waxu penc mi ñëpp ko xam mais ñun waxuñu parité dañ koy def ci gouvernement waxuñu parité dañ koy def ci fonction publique kon gis naa ni foofu ay réeroo am na fa parce que réeroo bi lu mu am moo di nit ñi dañu diital idéologie te ñun joxewuñu doxewuñu idéologie maintenant am na troisième élément boo xam ne jaaxal na ma trop dañuy xëy suba rek ni parité mooy homosexuel parité mooy lan beneen bi nu ñu ko tuddee mooy lesbienne mooy xaw ma lan euh, démb maa ngi ko doon expliquer sama doomu bàjjenu parité bee toog fan di ko wax ni ko parité fi mu jël euh, du woon dañu parité ak genre duñu benn euh, li ñuy wax genre muy rôle social année 1930 la commencé benn anthropologue moo dem Nouvelle-Guinée Papouasie gis fa jigéen góor ñi di laab xale seeni bébé mu ni lii de amul ci sama réew ne kon dafa am beneen rôle buy am moo di ndekete góor mën a def leneen wala jigéen mën a def leneen moom moo nag moo jur Rotation du Pouvoir wax ni on n'est pas femme on devient femme léegi nag débat bi am si débat d'orientation yi dans les sociétés y a des d'orientation bi am gis nga dañu war nag euh, sargal jigéenu Afrique am satu yéen nga woon Beijing bi ñu commencé poser débat boobu jigéenu africaine yi Aminata Traoré bi nekkoon ministre de la culture du Mali dañu bañ ni leen ñun loolu du suñu soxla ñun question développement lañu am jigéenu Afrique mën nañ feexal seen bopp seen ay point de waaye nag doo ñëw xool nit ki rek ni ko yow lii ngay xalaat débat moo de yow laaj ma lan lay xalaat wala lan laa gis si si mbir mi en tout cas man dama ciy mandu kenn nu ko nekk dinaa la nangul ni ngay xalaate mais bul ni man lii ay xalaat parce que man xalaatee wu ma noonu li ma xalaate wax naa ko clairement waaye naan dafa am derrière lu ñu fa jël parce que débat bu yàgg nañ ko gis gisoon nañ ko ci communiste yi naan Occident ce débat de l' dafa bëgg def nii nësër nit ñi ak yooyu. ensuite deuxièmement la question de la de diine euh, diine bi nañ nangu rek ne xëy na am na ñoo xam ne ñoo ci seen gis ku nekk dañu wuute gis-gis mooy ñu fexe ba nu ñuy dajee gis-gis yi parce que yàlla bi benn la mais xëy na ni ko nit ñi di interpréter moo différent parce que man buñ ne ma yàlla moo ni jigéen du jiite réew. nee na du jiite julli loolu xam nañ ko mais du jiite réew mais ci alxuraan Balxiis dañ ko ci tudd te Balxiis c'est en tant que chef d'état qu'on parle d'elle dans le Coran mooy ba muy taseeg yonent yàlla Suleymaan ba mu nangoo reconnaître ni yàlla am na jinne yi dañ ko indi trône bi mu doon toog loolu moo di dañ ko reconnaître en tant que chef d'état maintenant société bu nekk yow yaay tabax li gën ci yow ak ni ngay doxe am Amsatou wax na notion complémentarité mais complémentarité dafa am ñaari sens sens bi mu expliqué boobu aw ma leneen lu ma ciy teg mais waruñu wax comme dama ne nag 10 plus 10 égale 10 plus 90 égale 100 40 plus 60 égale 100 euh, bu ñu euh, nelawloo jigéen ñi aussi si concept complémentarité waaye li wóor ba wóor moo di ni mu ko waxee dallu ndeyjoor ak dallu càmmooñ bu ñu ku nekk boo leen jaawalee rek tey doo dox. tey jëlee sa dàllu ndeyjoor ak sa dàllu càmmoñ nga jël càmmoñ ba dugal ca dàllu ndeyjoor ba jul ndax dañ ko essayé léegi ba xam ndax di nga dem kon ku nekk da nga toog place boo xam ni cër bi nga am dafa jëriñ keneen ki muy ku góor ki muy ku jigéen ki moo tax am surtout je te remercie je crois que le concept d'équilibre est un concept intéressant man daan naa wax mouvement de femmes yi bàyyi leen autorité parentale wax responsabilité parentale peut-être que su ngeen waxee responsabilité parentale Sénégal yi daañu gën a mën a comprendre loolu parce que yaru xale bi si kër gi ku nekk am nga si cër mais bu ngeen fi waxee autorité parentale déggin bi day indi problème xëy na peut-être que au lieu wax parité mun nañu wax la notion d'équilibre parce que l'objectif fondamental c'est une société équilibrée boo xam ne ku nekk da nga am sa cër di ko fa doxal léegi nag ku nekk sa biir kër li nga yaakaar ni loolu ngay doxale keneen du ñëw di la fa fekk naan nii nga koy defee moo tax may rafetlu rek euh, li ñu fi sëriñ bi woo pour ñu wëccee xal gën clarifier li ñuy xalaat ñu xam ne ñun duñu ay martien jógewuñu sa Mars jógewuñu sur la lune ci Sénégal gii lañ jóge ñu gëm ni ñun ñëpp ku nekk yàlla def la may ni ngay xalaate euh, xalaat yi mën na wuute mais bu ñu yàggee di daje rek xalaat bi day rafet moo tax sama doomu bàjjenu bâtissé ba xaw ma ana mu ngi si gannaaw ma dem Ndaw tey moom damaa kontaan sax ci intervention parce que démb moom dafa xawoon tàngal mais tey wax nañu ba ñu comprendre waaye élève wu Amsatou bi Amsatou nag tu as failli à ta mission ndegam yow yaa jàngal xale bi tey mu taxaw mu taxaw fi di ñu di dégg nga kii war nga jëm nga seetaan diplôme bi nga ko joxoon ndax doo ko nangu gis ngeen góor ñi li am ba am assemblée nationale collectivité locale lekkukaayu xaalis la ma wax ko fii nag ñu mereeti ma góor ñi nekk ñu fa lu dul jël poste yi ak xaalis bi comme dañ fay jël poste ak xaalis mais lu tax jigéen ñi duñ ci am donc wax ji yëpp lool la parce que li tax ñu raw ni ah déedéet gis nga li tax ñu raw ni tubaab bi moo indi ni école la nit ñuy jaar xam nga bu ñu continuer woon sa ndata yàlla rek xëy na tey maa doon doon président de la république waaye tubaab bi moo ñëw ni ku jàngul école ba pare yemale jigéen ñi ay CEP ay brevet bàyyi jigéen ñi góor ñi dem ay ENAM léegi góor ñooñu ñoo occupé poste de responsabilité yëpp te soo nekkee ci poste de responsabilité da ngay am essence am oto am possibilité jël sa jarbaat dugal wala sa militant dugal mu may la base sociale kon jigéen ñu aussi il faut ñu profiter wu ci possibilité yooyu pour ñoom itam mun am seen base sociale ñu fi nekk rek di tàccul di tàccul ñu góor ñi léegi nag ñun li ñuy soxla ci parité bi ñu man du ko tudde parité moo di fa ñuy nase ak di nocci il faut que jigéen ñi taxaw fa taxawaay bu takku góor ñi taxaw fa taxawaay bu takku loolu moo ñu tax a jóg léegi loolu bu amee jàmm danaan ñooy ku nekk wax sa waxu moro sa li li li nga li nga soxla léegi nag euh, après ñu mujj def ji évaluation man ne naa man bis bu ma defee évaluation gis ni parité baaxul dama koy bàyyi man aw ma ci benn état d'âme parce que dama ne man chercheur laa li ma sama gëstu bay dama koy génne Aziz am na lu mu wax fii ñun ñoo ko jëkk bind c'est-à-dire on a attiré l'attention sur la question de l'égalité sur la base identitaire parce que ñun dañuy wax ni nous analysons les effets positifs de la parité du genre mais nous analysons aussi les effets pervers parce que en sociologie loo gis rek am na safaan bi parce que il n'est pas question que demain non xam nga xale bi dinaa wax nag maa ngi lay déglu xam nga il n'est pas question que demain ñu ñëw fii euh, di wax ni euh, kii bi euh, comme comme ñun deux pour cent la ñu ay xaw ma lan ay joolaa il faut que ñu nekk 2 pour cent ki 6 pour cent séeréer la il faut kale mu nekk et cetera ñun analyser nañ loolu. mais nee nañu leen moo taxoon ñun ñu bañ ñu dugal genre fu nekk handicapé yu kenn xamul ñun leen quel que askan boo dem foofu rek moo am représentation góor ak jigéen nga xam ni ak plus ou moins égalitaire feneen foo dem mënu fa nekk kon nous nous anticipons. sur les effets pervers kon mënuloo basé wu si genre pour wax ni da ngay am parce que loolu représentation proportionnelle la tudd la parité ne donne pas une représentation proportionnelle elle donne une représentation sur la base de l'identité sexuelle mais waxul ni loolu la kon mënuloo utiliser loolu dem ni kon euh, ñun 95 pour cent de musulmans lañu kon 95 pour cent la ñu doon protestants ya 1 euh, euh, pour cent lañu lii lale lañu et cetera. encore que c'est un débat man je ne dis pas que c'est ouvert ou fermé dama nekk bu kenn tafantukoo si genre pour ne yaa ngay ñëw di ko fa def parce que genre fi mu appliqué wu mooy identité sexuelle ak identité sociale foofu la mun a yem kon nañ continuer di gëstu di séparer ñett ñi léegi indil nañ leen ñun suñu euh, gëstu ñuy def euh, indi naa si benn loo euh, sëriñ bi je crois que j'ai une dizaine d'exemplaires pour ñu def ko ci bibliothèque bi ñuy continuer nag di di gëstu man je suis très intéressée si Aziz euh, argument yi mu wut génn yi dinaa ko jéem a reprendre wala ñu ñu tasewaat Aziz pour di xool argument boo génne ñun lan lañ ci mun a wax et et vice versa ñun tamit argument bu ñu génne yow lan lañ ci mun a bu boobaa on se retrouve en tant que universitaire parce que man je préfère avoir une confrontation ak yow en tant que universitaire bu boobaa en dehors de toute appartenance parce que comme Amsatou mooy sa professeur université Cheikh Anta Diop nga génne kon war nañ bokk référentiel boo xam ni war nañ ci mën sukkandiku pour mën a euh, avancé kon loolu laa amoon lu ma ciy dolli ana sama doom bi j'espère que li ma ko tontu euh, xëy na dal na xelam bu dalul xelam tamit daañuy continuer di ci jéem a waxtaan moom yaakaar naa ni mu ngi bëgg ñëw non non non non d'accord kon nag jërëjëf euh, euh, euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. soxna Amsatou Seye Be dafa dafa spécialisé wu ci droit soxna si Sarr Sarr dafa spécialisé wu ci sociologie bu ciy wax ñu xam ne mi ngi wax ci lu muy xam mais nañ nangul loolu tam ñi jàng diina bu ñuy wax ñu xam ne ñoom ñoo xam diina ñoo ciy wax. mais bu fekkee dañ ne ku ne jullit nga rek léegi nag ab jullit nga rek kon mën ngaa wax ci diine liir nga alxuraan dañ ko traduire nga ne mën naa wax ci diine. buñ bu fekkee dañoo bëgg wax ci gën a ah alxuraan moom benn la waaye interprétation yi mën naa wuute mais même interprétation yi dafa am ñu ci spécialisé wu. interprétation du ku ne yaay jóg man ko du kum neex rek nga jël sa traduire téere bu ñu traduire daal ne man xam naa alxuraan ndax jàng naa ko ci traduire du c'est pas waaw. kon loolu il faut ñu xam loolu kon man waxtaan wi gis naa ne bunt la bu ubbiku bu am solo boo xam ne yàlla na yàlla dimbale Cheikh Abdou ba lii gën a continuer xam naa ne nag dana am ñu ko gisee neneen waaye ñi jàng xam. ñi nga xam ne xam-xama leen ñor danañ xam ne jataay bi jataayu xam-xam dëgg dëgg dëgg feeñ na tey mais nag jataayu xam-xam la boo xam ne am na lu ci xaw a rax tuuti parce que man gis naa ne Serigne Aziz dafa xaw a xolli gunóor loolu laa koy wax dafa xolli gunóor ku xolli gunóor rek da nga am problème yaakaar naa ne problème am du yem fii danañ ko suivre bu baax a baax parce que xam nañ ne am na lum laal te laalaake la laal laalaake boobu nag il faut dana ko topp yàlla ko yàlla dimbale ba mën ko défendre bu baax a baax jërëjëf